pare moo tax bi mu pare. bi mu njëkk a defar bi résidence Seydi Hadji Malick. résidence bi nekk fii. loolu du lu ndaw. kon yal na yàlla jàppale leen na yàlla jàppale leen. doole leen sutura doole leen taxaw. képp ku bëgg réew mi. fii nga koy utsee. sëñ Ahmed Khalifa Niass. sëñ loolu te loolu mu wax noonu. mooy dëgg de. mooy dëgg luy fal buur. président ak lu koy folli. joo na ko yor. këru diine diine yi. ñoom ñëpp. ñu baax lañu. yal na yàlla yàggal leen fi. seen xalifa yi dolli leen sutura. soppee Tiwaawan lañu. ñoom ñëpp a sopp Tiwaawan. parce que Seydi Hadji Malick. yàllay kese la woote. moo tax mu daan wax ne. moo tax mu daan wax ne. kër gi kër si yàlla la ndaw na. loolu est-ce que ndaw na. Macky man mii man mii. maa ko njëkk a wax ne ko. di nga doon président Sénégal. booba. boobu commencé gul dugg ci politique. amagul amagul. place. ñuy dem ñuy dem. ba mu dugg ci politique bi. ba nekk fi directeur. ba nekk directeur. nekk ministre. nekk ministre. nekk premier ministre. nekk premier ministre. ñu génne ko boobu. ñu génne ko boobu. mu dem assemblée mu dem assemblée nationale. ñu fokkati ko ci loxoom. ñu fokkati ko ci loxoom. mu ñëw seet si sëñ Mansour. mu ñëw seet si Sëñ Mamadou Mansour. fii. mu ngi jaaxle. mi ngi jaaxle. sëñ Mansour ci yërmande la. sëñ Mansour ci yërmande la. boobu ma koy ngeeg milliard. boobu ma koy ngeeg milliard. ay milliards ay milliards. waaye waaye. boobu tiit na. boobu tiit na. muy ñaqal fa fenn. muy ñaqal fa fenn rek. sëñ Mansour ne ko. sëñ Mansour ne ko. gars yi dañ laa bëgg a tëj. dañ laa bëgg a tëj kaso. fanqal naa la fanqal naa la ko. def naa la président def naa la président. soo faroo soo faroo. balaa ngaa defar balaa ngaa defar fenn. defaral ma Tiwaawan defaral ma Tiwaawan. waxul defaral ma jumaa ji de. waxul defaral ma jumaa ji de. defaral ma Tiwaawan la ko wax.